صحبي وكاف ما حضر عني وجاد لي إليك بنصر يا سيدي ñu ngi teewlu bëgg ñëpp gën a teewlu ci góor ak jigéen ñu gën a wane ak dal ci niñ ko daan defee ci dëkk bu tedd bi nga xam ne njabootug sëriñ Touba ñu ci bari fekk si nañ fii ki nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Fadiama di waajuru sëriñ Abdou di rakki sëriñ Seex mi nga xam ne moo di xalifaam di sant yàlla bu baax nag ci waajuram bu tedd wi nga xam ne da koo fekk si tey te muy ku ñu ràññee te bari yërmande lool rawatina bu jëmee ci daara bu jëmee ci daara yërmande ji day rëy lool lim leen ëmbal day buñ sañoon ñëpp yu bale ko te mooy bàyyi xel li tax mu ñëw fii déglu itam ñi mu àndal te ñu ñu tedd tañu ràññee leen sëñ Mouhamadou Lamine Diop njabatuk si Abdoul xaadir ñëpp a ngi fii sëriñ Gana Messere Mokhtar dana yëkkati ay kàddu léegi incha allahu rabbi ci ndigal su ko defee loolu lépp nag ñu taatan ko te fas ni ko mag ñi defee fas ci barab bi barab bi attan na lu baree baree bari ndax ñu fi jaar kon nag tànkam yi tey wuuti wut ak sëriñ bu moo fi teew tey jii fekk si sëriñ Mbàkke ma na ko waaye juróom ya daan defee kon ñi ngi sàkku ñëpp teewlu te sàkku nag ci biir waxtaan wi lu ci waay mën a wax rek lu ci waay mën a rafetal rek yéene ko ci biir attan na barab bi attan na lépp attan lépp te yàlla ñu ko sëriñ bi defal sëriñ bi ñu ngi ñaan suñu borom guddal soofan te wéral la te musal la ci lépp nag lépp loo xam ne lor la yàll na la sori dikk bii de bég nañ ci lool na suñu sang bu tedd bii nga fekk si nga xam ne fàttewul dara ci moom te fàttewul dara nag jëmm yu baax a ngi nii joo xam ne fàttewul dara eh, ñi mbokk la nekk si soins bu day da leen di toppaat kenn par kenn ci loolu laa demee ba xam barab bii kon nag ñu ngi lay siyaare bu baax Mbàkke tey bég ñëw gi bi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 di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi kilifa gu tedd gu màgg gi nu nekk ci kanamam di Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te yàggal ay kilifaam ci kanamam Cheikh Mamadul Muntaka ak mboolem njaboot gi yépp di siyaare kilifa yu baax yi nga xam ne it ñoom la fekk si ci dëkk bu sell bi di Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Mbacké Fadiama moom it ñu di ko ziyaara bu baax di nuyu kilifaam Serigne Cheikh ñaan njaboot gi yàlla sunu borom yàggal leen te wéral leen ak kilifa yu baax yi fi nekk yépp noo ngi leen di siyaara bu baax kaddu yi day kàddu yu ndigal rek yu nuy yëkkati nuyu sunu wayjur wi nu feggool di sunu wëlale sëñ Lamine jóob ak sëñ Afiya coobaan ñu baax ñii day mel ni sëriñ bi jataay bi njaboot gee ñépp teew nañu fi yoon wi teew nañu ndax njabootuk maam borom Cham ku ko tudd rek tudd nga njabootu Serigne Touba yépp yëpp te Serigne Mbacké ngi nii toog moom sëriñ Guédé waaye it boo tuddee cheikh yoon wi tudd nga yoon wi te njaboot gaa ngi fi cheikh yaa ngi fi ñëpp a ngi fi ak taalibe yi ngir fekke si bis bii nga xam ne dafa rëy ci Serigne Abdoul Ahad lool ndax wax na ko léegi ci biir. wax na léegi ne diggante bi gàtt na waaye nag ki fiy ñëw ni mu toll te ëmb ko ci yiw ak yërmande ak xéewal yéene na ñëpp mën caa jariñ kon lu man ci fexe ba taali bi yëpp man koo jariñoo loola tax mu am ñuy sant yàlla nag la Cheikh Abdou mu baax mii nga xam ne defe naa ku gis image bii danga ca mën a gis image yu baree baree bari yoo xam na ci yeneen i béréb yu wuute lay doon te jëmm yu mel nii muy taalibe yi ak mbokk gi loolu rek a tax Cheikh Abdou Samad di jóg waxtu wu ne te ku ne xam na xataayu jamonoom ngir kilifa bu ko ñëpp dee yittewoo bu demul fen nit ña ko yittewoo bëgg ko gis wala ñu bàyyi seen yitte ñëw ci moom doy na sëkk yitte waaye waxtu wu nekk rekk moom mi ngi yaatal di yokk jéego yi sëriñ bi ci bokk gi ak taalibe yi mu nekk koo xam ne nag doy na sëkk dalale xel ci Cheikh Abdou Samad mu baax mii nga xam ne kenn ku ne ci noonu man ngaa yëkkati ay kàddu jëme ko ci jëmmam te loo ca wax boo noppee nit jël loxoom teg ci sa mbagg na la yow de da ngaa baax wax lii waaye man sëñ bi lii nga xam ne mooy won na la nekkoon am na leneen lu ma denc loo xam ne agsiwul ci yow bu dee ku mel ni man nag bu ciy wax dañ may jéggal ci léegi-léegi mën naa ma jigéen moom bu bëggee boroom këram lu mu ca waxit da ngay comprendre ne daa bëgg soxna boroom këram rek sëñ bi moom jërul di ma natt bu ma ciy wax moom jëru ma natte lañ moom maa koy dogal ngant léegi sax nangu naa di ci dugal dogal dogal ngant ngir gars yi man maa comprendre xam ne day koo xam ne comme jëflanteel booy waxit noonu rek ngay wax ngir lenn lii rek wane na ko moo di Cheikh Abdou Lahad sëriñ Mbàkke Fadiama yooyu juróom sëriñ Mbàkke Fadiama léppi sëriñ bi la di alxuraan ji dox di xasaayit di dox di tey université boo xam ne bu ñu doon jàngale ak murit dañuy dellu ci Serigne Mbacké Fadiama jaayu bokkam jaay xam-xamam jaay léppam di murit tey jii kon bu ko gis Cheikh Abdou Samad miit jéego yi muy dox di ci jëm ca ñooña rek lay doon mooy luy tax ñu gën a xemmem yoon wi luy tax ñu gën a naw yoon wi te waxtu wu ne it day nekk avocat boo xam ne day taxaw ci kanam àdduna di ñu palee del defe naa taalibe yëpp amee nañ jukkal Cheikh Abdou Samad ci bu njàqare amee mu ñaan ci bu jaaxle amee mu dellee sunu bu tuub jotee it mu awal na ca yoon woon war a jaar ba tuub jéggulu njariñam it leer na àdduna bépp ndax defe naa doo xool benn bis te bis ba lam tombeel ci ngëneel ak yiw gisoo Cheikh Abdou samat def lu ca ab vidéo baa mu def lu ca ab vocal buy jàngale ne lii kat njariñ la ci bis bii kon bëgg na ñëpp mucc bëgg na ñëpp am bëgg na ñëpp xam bëgg na ñëpp raw loolu defe naa ku xool danga ko gis tey it jàpp naa ne tey jii tax na ba ñu baree bari amatuñ jotug féex jotug féex mooy boo naree toog defoo dara da nga ne kat Sëñ Abdou Samad de waxoon na nangam ci salatu ala nabi wala waxoon na nangam ci istixfaar wala waxoon na nangam ci xasaayit xasida sàngam loola kon yokku na sa yitte saw doxin ci jëmmi Serigne ba loola nag defe naa jëf la joo xam ne kenn mënu koo fay ci àdduna kenn mënu koo jot ci àdduna ngir melokaan wu nga xam ne euh, matale na ko loolu nag tax na ba Euh, adduna bépp am ci moom ak cofeel cofeel goo xam ne day wone waxtu wu nekk rek sëriñ Touba ni mu xajoo woon ñëpp ëmb ñëpp ndax defe naa ku beru ci sab ruq yi bu la neexee yëkkati sa loxo teg ci sab dënn na li ma sëñ Touba defal waaye boo ko wàccee nag defe naa tegaat ko ci ne lii laa def sëñ bi ba tax sëñ bi defal ma lii moom loolooy yeexal yéega yéegaayub loxo ba ngir loxo ba mën a yéegaat tege fa mu tege woon waaye kenn ku ne moom sañ naa gaaw yëkkatib loxoom rek teg cib dënnam na ni ma sëñ bi def waaye nag illay li tax mu def ma ni maa def nii moom defe naa dana jafe dana jafe ndax benn nongul mu la nongul nga dib taalibeem la mënoo ko fay maanaam loolu moom bu noo toll rek maanaam li ñuy tudde acceptation maanaam nongo gi sëñ bi nongoo nongo nga doonub taalibeem loolu boo doon dagg say ci rek jël sa alal ak miraas say bokk ak lépp taxul nga jotagul àq yi point boobu rek muy sëñ bi nangu nga dib taalibe bi kon loolu loolu tax na kenn ku ne war di ko sant di ko gërëm dafa wax Serigne Bachirou Mbacké radiyallahu taala loo xam ne ci mbindam Minanul Baaxil Xadim la nekk Serigne Bachirou Mbacké dafa wax ne sëñ Touba de na ma bis xaala li zaata yow mi la wax inna sab'a sinina allati makusta fi Congo ma daat sa yasur insa allah yowma tubla sarairu lenni maa xadaxtu rabbi fi ubudiyati maa xadaxani rabbi fi rububiyati li xosni li sidqi waxdihi loolu la wax sëriñ Bachir daan na ko nag fa laysati dunya bi daaril jaza wa sha'nu fil axir loolu lu yéeme la dana sëñ Bachir juróom-ñaari at yi ma def Congo réerut dana feeñ nag bis ba nga xam ne mooy yow ma tubla sarairu bis ba lépp di feeñ lu nëbbu woon di feeñ bisub keroog li ma liggéeyal li ma liggéeyaloon sama borom ca Congo dana feeñ daldi na ngir bi may jaamu yàlla naxuma ko ci jaamu gi ma ko doon jaamu ci nekk ab jaamam waaye bi ma yàllay fayit naxuma ci nekk gi nekk sama boroom ci dëggalu ab digam ci lépp lu mu daale na mu koy defee daal na ko waaye àdduna ji ñu nekk nag dadul kërug pay amul solo mbir maa nga yomal xiyam kon loolu doy nag nit setantal ci rek ci ne loo gis con ci àdduna ba mu di lay yéem ba tax ngay jaaxle ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na sëñ Basiiru fa laysati dunya bi daaril jasa wa sha'nu fil axira adduna moom di kërug pay mbir ma ëllëg lay feeñ ma gisaat ca waxi sëñ Basiiru jooju mu waxaat ca lu yéeme na ko man de ba ma bañ ma toggee jëf ma xàmmee ba léegi mosuma fee jëfaat luy dolli imaan ci man baa lu fiy dolli ak sàmm kon daa feeñ rek ñu togg ko mu mat sëkk nga xam ne doxiinu juróom-ñaari ati Sëriñ Tuubaa ci zahir mooy doxiinu juróom-ñaar fukki ati Sëriñ Tuubaa ci ci melo daan na ko dolliku ci luy waral imaan dolliku ma ci luy waral ak sàmm daan na ko mbir mépp nag tukkib géej gee daan na ko nag yiw waa ngi ci daan ne maa ngi muslu yàlla ci bañoon gi am nee na sëñ Basiiru ne ma laaj ko na ko kon jul tukkib géej bi lan nga ci dolli ko si diggante ak sa borom ne ba ma ko waxee rek fata bas sama mu daal na kàng muuñ ma nag daal na dolli koo naa ci lu bari kay daal na ko almaarifatu wal wusul wal yaqin wa nawaahibu laa tatanaa loolu laa ca dolli ko egg ci yàlla dëgg nag xam ko bu baax sës ca moom rëkk laa ca dolli ko bu wóor ak yaqin ca maratibam yëpp nag egg naa ko ci sama borom waaye mawaahibu laa tatanaa may yoo xam ne du dakk mukk te du jeex mukk ci àdduna loola laa ci jële kon looloo waral lii rek ko mën a rafetal mooy sëñ bi day sàmmal ko yëfam mooy nii wuufal ko ñoñom mooy nii te koo xam ne foo jëm ñëpp fàtte seen bopp ngir yow boo jógee sa kër yor sa mbaxana mu rafet boo ñëwee teggi te yaakaar dong la yaakaar jooju kenn mënta tax mu tas yaakaar jooju kenn mënta tax mu tas moo tax pas-pas boobu waxtu wane nañ koy dëgëral buñ moderniser mukk taalibe gi day war a jiitu waxtu wane lay jiitu la ca war a topp topp ci ki lay kapp-kappal day bëgg kum àndal xam nga ko ragal ci yoon day bëgg ko wettili ku newut ci dëgg kum àndal rek lay wër ki ne ci dëgg na day xam ne ci dëgg la ne sëñ Tuubaa mooy dëgg sëñ Tuubaa ginnaaw liñ gis lépp tey taxu koo jóg te moo man ñëpp ci tey raw ñëpp ci tey mbooleem lu ñuy tàllalu loxo di ko wane ci yàlla sëñ Tuubaa ci jiitu mm-hmm. ñoñom jiitu ci jëfal ko yàlla defe naa alxuraan moom ku laajoon na ko koy sëñ Tuubaa waa këram dana ne man de li ma am ci war maa ko fonkeel ci sëñ Tuubaa ak waa këram laa ko am jumaa it ku ko laajoon lan mooy sa waay dana ne man bi may ñëw sëñ Tuubaa ma taxoon a ñëw bu dee aj makka loola la lay wax bu dee jaamu yàlla loola la lay wax loola kon lépp luy kenn yuy ŋànk diine lislaam ñooñ sëñ Tuubaa taxawee nañ ca loola te rek li mboolem lu ñu amee ci sëñ Tuubaa ba di ko naw ci nit man cee teg bët lu ci ëpp ginnaawam la ndax sëñ Tuubaa jenn jumaa la fi bàyyi ju noppi ca njaareem na misbaax ulu sama wana yaatu al ard waaye tey ñaata jumaa moo am ci yoonu murit ñaata jumaa am ci dëkku boppam bi ñaatay daaray alxuraan moo am ñaata ñaata yoo mënta lim kon lam fi bàyyi woon dara màggatu ci kon nag ni nga mën a gëmee ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa ku ne wala njabootu sëñ Tuubaa gi waxtu wu ne ñu ngi yokk li fi sëñ Tuubaa bàyyi woon kon yow it gëmal ne ña doxoon jëm sar saara dañ seen sayir mënatoo koo am ña demoon ca yéen mënatoo am seen seen ndax sëñ Tuubaa nekkatu fa waaye boo amee pas-pasu lañ amoon ca wute ko nañ ko wute woon boo amul ca lañ amoon it am loo xam ne ku defut néew du ko am kon pas-pas yooyu nañ nàmm suñ pas-pas jëmee ko ca pas-pas yu mag ña pas-pas yu mag mooy dëgg ak murit dafa neex bu ko kenn moderne seen jëmm si misaw dal làmb sa po sukku raam mën a jooy ngir sëñ bi loolu mooy dimbale nit ak neng-nengal jëriñ jëriñut ab murit dara amalu ko benn njëriñ murit comportement bi mu war a yor mooy nii tax Cheikh Abdou mii tey di doomi Serigne Chouaïbou mboolem kuy yëngu ci alxuraan baa nga yëngu ci xasiida baa nga yëngu ci diine yéen a ngi seetaan ay vidéo damay wax ne sëñ du léegi léegi sax nit waroon koo bëgg a gis mu jafe ko waaye yërëm mu la bëgg a yërëm ak dimbale gim la war a dimbali day tax mu jegeel la boppam. ndax kat ku mën a doon boo sukkee fi ay woomam mu dolli la loo xam ne boo fi bàyyi ko atoo koo damoo ci say morom dama koo wax keroog benn vocal muy mu di ko ree ma ne ko man de damaa am lu ma xam ci yow. jàpp goo xam ne bi nga ma jàppee yëg naa ci sama bopp loo xam ne dolli ko na ci sayir ma ak bëtin ma waaw sayir ma ak bëtin ma xam ne dama ko wolofale ci jéem ci wolofale sayir ma ma te kenn ku nekk xam na liy metti fi yow bu seddee sedd nag bu seddut nag ah bu seddee xam nga sedd na bu seddut xam nga seddut te sëñ Abdou ñim ëpp ñëpp wàcce na boppam ànd ak ñoom kum jiitu xaar na la te bokk gépp nungul nañ tey jii bu woote woon ci takkusaanuk tey ne ku bokk ci maam maaram wala foo mën a bokk ci yoonu sëñ Tuubaa wuy si ma kenn ku ne jine la loo ko mën a wujjee defal na la loo ko mën a wujjee la ca jiitu mooy yëg gim la yëg fekk la ci sa biiri bokk ak sa biiri nawle jox la wàccuwaay ba nga moom Cheikh Abdou sama li fi sëñ Tuubaa bàyyi ñu di ko sàmm yaa ngi koy sàmme noo ko war a sàmme muy ak yëg xam nga ki la gën ba noppi jiitu la bu la nangoo xaar day dalal sam xel te ku mën a doon ci adduna lu laal ci sëñ Tuubaa mënta yem ak lu laalu ci te dama daan wax ne ñeex mu tàng mën naa tàng ba kum lakk kum sotti nga lakk waaye mënta taal bopp ñeex taal bopp bokkut ci mbiram waaye xalu sawara lu tuut tuut boo ko tegee ci bopp mu boole ñeex ak bopp lépp taal mooy sëñ Tuubaa ak waa këram waaw man ngaa aale nag ba am tàngoor ak di lakkeeg di rocc yi der waaye taal moom bokku ci tey sëñ Tuubaa du jël du jël ay jàmboor def leen ay ay ay gañe laa koy jasineer def waa këram pëpalin loolu mënta nekk ndax ni koy xamee mooy lu la sëñ tubaa jox lu mu rëy rëy boo gisee ku bokk sëñ tubaa dindi sa mbaxana sukku suuf fi ne jataay bi ñëpp la sëñ tubaa sédd seen i maam waaye moom doo ngay ne ci kaw kon lim am li sëñ tubaa def ñoo ñem defu ko keneen waaye ñam defal ñeet nag ku defut ni ñoom doo ko am te damay wax ne xaside yi ak magi sëñ tubaa ñi ñooy yoon sëñ tubaa lim jommele adduna lim bind kenn bind ko lim jommele adduna mooy fekk kaang mu man alxuraan di fóore am xam-xam judd judd bu rafet di jaamu yàlla di nafila di nafila kaamilu alxuraan di saxoo woor du mooy yàlla ci gëtam du mooy yàlla ci benn cër xëy bàyyi lépp bàyyi santam ku dëkkam topp sañ Tuubaa di woow santam xam na ne meneen mbir nga fa kon nag bokkut ku jàng ñaari hadiis ak ñaari xisa rek defe na danga ngaa weeru bero ne te nee naa loolu système bi ci nekk li tax ñu war koo comprendre mooy koo gis muy dégagé encaissé la bëgg li naan xaalif tonraf ñi bëgg leen topp ñëpp dañuy wane ne li fi ne baaxut normalut ngir bëgg leen topp ku leen saraxutit jox leen addi baa ñu cotisé ba yi la nga yor ñu jël ko waaye joxe booleeg jooy ak xol bu nungu ci sëñ Tuubaa dong lañ ko mën a def barki démb nee naa leen misaal la ci bi is bu tarxee di siyaare ji sëñ Muntaxa mi teew teew na fan nga gis ci kilifa ak diine wala l'islam tàmbale ko ca Makka ak Madina ku fi sa mbooloo dajaloo yor cent 313 million boole ko xasida yay jolli sa maama ko bind dëkk bañ la koy joxee sa maama ko moom nga moom dëkk ba moom xaside yi ñu boole ko liggéey ko ba mu leen raaw raam jox la ko delluwaat ci seen kër kilifa gu am loolu amul kon sëñ Tuubaa yàlla defal na ko lu kenn amul melal na ko lu kenn mel kon nag sëñ bi Mbàkke sant nañ bu baax nun dañ sëñ Abdul Ahad mii sëñ Cheikh jaxasoo nañu waaye ñoom it kenn yebewul yoon wi jaare ko ci na ko ba sëñ Daaru mi bi ma ko waxee damaa bëgg a seeti sëñ Cheikh wala ma bëgg a seeti Cheikh Abdou dama koy wax waxtu may war a dem ndax ñoom yàlla daa dogal ne li ñu war a def ci diggante jaamu yàlla kenn daa mënta tax nu dog te nawee naa leen ko lool nag ndax benn àdduna dafay kër gu xat goo xam ne képp koo xam ne jël nga sa yitte yëpp jëmee ko ci àdduna nit ñi ñooñ àdduna ñi xëcc la ci wet gu ne bala la war a def doo ko def waaye ñoom ñii de li ma xam ci ñoom ba ñu taxoo ma xam ko ba léegi mësumaa gis ci ñoom lu ma leen xeebe wala lu ma leen yabe wala lu dul di leen gën a naw te di leen gën a bëgg loolu mën naa ko seere ci yàlla te bari naa béréb yu may dem am na as tuuti lu ma jot a xam ma mandoo ci dara it man na maa xam dara waaye nag sukkal moom ak raamal day wor may yoon wi waaye topp ak bëgg moom ku la doy nga koy def nit moom mën na laa sukkal ba noppi te gëmu la ndax bu ko deful gars yi ne diw laa jàgg fi ne ma soloon sama mbaxana mi fii léegi benn waay fattax fe këf mbaxana mi sànni ci àll ba kon boo ko deful ngir wor may def ko ngir bëgg sa bopp sedd waaye foo toll daan sa jëb doo baax moom sa jëb doo la koy wor te man Mbàkke loolu wax naa ko léegi rasulullah ku la ko wor loolu du caaxaan de makka joo xam ne yow kiriyee woo ko waroo ko dañoo jekki-jekki na la ndax mas ngaa dem makka nga ne dee ñu ne waajal nga dem makka ñu yor la fa makka yoral la sa kër sëñ bi loolu neex na de man fi ne makka dafa metti woon ci man waaye fii ne damaa bëgg a dell ndax altine 200000 moom nii xutaamee ci lëkk bi te makka da ngay dem di ko fa am sëñ bi da yónnee makka ba noppi yónni ndaw lu dox sa kër nga ñibbisi mu jiitu la fa ganee teral la loolu nag. gis nga mbaxana yii gaa yi sol léegi-léegi mu ñëw na la del sol mii ndax moo gën a rafet Seydou Samad li ci gën a nekk dafa garder grandeur am am personnalité moom loo gën a silwi sa gën koo neex am na ñooñ bu sa gom safee ñu gañ defe ne da ngay ñod di seex ñod di wun dara sa maama nu rek yow nag loolee ngay wone salaamaaleykum wa rahmatulah euh, jëmmi jotaay bi li ko waral mu mel ni mu mel ni tey waa kër sëñ Maam Mor ñëpp ngi fi ak waa kër Seexul Xadim ñëw di ko fàttaliku suba kon bu danañ seet ñaar ñi nga xam def nañ ko ak lu tax ñu def ko sëñ Mamour jaara bi nga xamante ne maa ngi ciy def benn bayit rek laa ci wax yaakaar naa dana mën a àggal la ca des ndax def nañ ci lu man ñaar téeméer bayit waaye sëñ Seexul Xaddim ngeen bokk waajuru góor waajuru jigéen ba noppi ngeen bokki jëf doy na sëkk moo tax ma ne man wa abban la bokk ak Bamba bokki jikko ku jàpp kii jëppi kee daa ajo defaraat kon yaakaar naa bay di woor dana doy sëkk léegi diggante ñaar euh, Cheikh Abdou Samad ak Cheikh Abdou nag ci lañ bëgg a ñëw su ngeen ma dégloo ma leeral leen fi tuuti lu may gis démb tey soog a ñëw toog leen ma nettali ko mooy jëmm ji di sëriñ Abdou li mu jëf ci yiw ci réew mi le firndeem lee ma ñëw andi ko Cheikh Abdou yow sa gan gi kër gi doonu fi gan ngir mag sa baay yiw ak akuk baax ñoo ca rakkati ko rakkati ko ne daa mat a leeral maanaam ñaar ñu wuuree kenn ku ne buntu yëpp morom ci dañoo rakkati ko kenn mënut dem ak baax ñoom ñaar dañ ca yem moo tax ma ne seex Abdoulaat yow sa gan gi kër gi doonu fi gan ngir moog sa baay yiw akuk baax ñoo ca rakkati ko sëñ Mbàkke Faajama ba mu woppee di waaj nar a dem sëñ Abdou Lab ndaj ca paj moomee lu kenn yëgu ko fekkoon rek ala lay tee di dem sa baay du dem ngir sëñ Samat dañu woon lum laaj ma jël joxe ko ndax booba dañu woon lu ci war ci faj maa koy def nanguwul kenn laal ca dara moo ko doon faj mooy def lépp ba sëriñ Saliou daa taxaw ni ah moom de lim def gis nañ ko muy positif boo xam ne ñi mbaroon ñëpp de teggil na leen ko waaye nag yàlla na ko sëñ Tuubaa féete fam ci ci yéeneem diggante ma sëñ Mbàkke Fadiama noonu la woon kon moo tax sëñ Mbàkke Fadiama ba mu boppee di waaj nar a dem sëñ Abdou Lam daj ca paj moomee lu kenn yëgu ko ko fekkoon rek alal lay tee dem sa baay bi du dem ngir sëñ Samat dane woon lu mu laaj ma jël joxe ko Cheikh Saliou dane woon Abdou Samad li mu jëf ci sun xarit bii murid saadix ba jëf gënu ko waaw sëñ Saliou dane woon Abdou Samad li mu jëf ci suñ xarit bii murid saadix ba jëf gënu ko sëñ Mbàkke faa jama ñang sëñ Saliou dane woon Abdou Samad jëf na ci ak te gis nañu ko li wér mooy sëriñ Abdou Samad sooye bu yow sooye boo yow sa xel dal ngir rafet nga jikko Cheikh Abdoulaat yow sa gan gii genn gan gënu ko lim jokk ci bokk mennum mbokk jokkugu ko maa ko wax ci kaw damaa tey waaw Cheikh yow sa gan gii genn gan gënu ko lim jokk ci bokk mennum mbokk jokkugu ko ngir lii mu dimbali ciy mag nag yërëm ko ci ndaw say kam nga def leeni kam ngir yàlla kenn defu ko irham saxiirahumoo warham kabirahumoo wacc xal li mislika kam Cheikh Bamba digli na ko Cheikh Abdoulaat mii nga daw ñëw ndaw la loolu dafa daw lu doon jëfi ndaw te daw nag dàq yiw ba tigo ñaanal ko nag ci sa barkeb maam mu dab ngërëmam nga dab yow it ngërëmam loo xam ni kenn amu ko sas wii di dimbale aw nit liñ ci def musuma gis kenn def ko ku dul yow mbàkke ngir mënu ko sas wii di dimbale aw nit liñ ci def musuma gis kenn def ko ku dul yow mbàkke ngir mënu ko amaana nit sax moom wërsëg wu dab bi nga am wante la sag tab la dul am dégg nga sab xolit yuru ko mhm. fi ni nit ñi dañ yor dara waaye tabe gi mu tabe maanaam lu mu yor mën koo joxe ba mu jeex mhm. loolu la gars yi mënut moo tax amaana nit sax mu am wërsëg wi dab bi nga am mhm. wante la sag tab lu dul yor sab xolit yuru ko sëñ Gana Messere wax na ko léegi xam nga léeg nga dégg ñaan sëñ bi bis mu génn ci Facebook ma ne ko waxaan ngay fésal lu baax bis mu ngaa war ci Facebook waaye daam ñoo xam ne wax mënuñoo wax sëñ Abdou Lahad da lay wax loola jariñ ba noppi di def loola jariñ ndax sëñ Abdou Khadir na sëñ daa am ñett yu mboole bi mu fi jógee la wax ku ñu jox lu dul jeex nga mën koo joxe ci bis ba mu jeex nee nañ sëñ Abdou Lahad la amoon ñëpp ba noppi mën nekk ci a suufe ci sëñ Abdou Lahad la amee woon nee na nag li gën a jafe ci àddina mooy nit koo xamante ni dafa amu fit ba noppi amu xel moom moom ne doon na ko ci bàyyam bii moo tax nag facebook bi fees nga ci feesal koo ki delli njariñ ni ñuy liqaamee nit ñuy noddee de xam ne nga ko julleeg li xam nga ko xam le di fii ni gars yi bëri xamuñ ko hayya ala salaa hayya wax te hayya ala salaa la a wax su ko dee bu ko jàngalee loolu baax na sëñ bi ki nga xam ne moom mënut a jëriñ nit ñi mënut a jëriñ ciy wax nag daa war a toog waaw moo tax fees bi nga ci fees feesal koo ki delli njëriñ nit ñuy li xaame nit ñuy noddee de xam ne nga ko nit ñi julee it ci yoneen bii ba am ngërëmam lu nit di def texe doo seen naar yi won nga nu ko gan ñeeg gan geeg ñi ki koy ganaleeg ñii teew fi yàlla nañu am wér gudd fan wér le luy ndam yàlla baaxee na ko ci barke Cheikh Bamba tam may sëñ Abdou tam may Cheikh Abdou Samad ngan ngee am ay at ñu teew si ko wasalaamaaleykum taala wa in uridu illa al ma stataat wa maa tawfiiqi illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib noo ngi nuyu mboolem sama bokki bopp yi fekk yëpp te teg nuyoo bi ci loxol sëriñ Abdul Ahad mu teg ko ci loxol ay waajuram ak i magam ak rakkam ak mboolem njabootuk sëñ Mbàkke Faajama waaye ak mboolem njabootuk boroom saam di nuyu ñi nga xam ne it noo bokk yaakaar Serigne Touba ñoom ñëpp bëggoon rekk kàddu yu gàtt yoo xam ne kàddu yu seere la li ci jiitu mooy yi ma seq ak moom te mënuma koo wax ci jataay bi dafa bari waaye yi ma ci mënta ñàkk tudd rek bala maa ñëw ci sëñ Mbàkke ci boppam moom mii li nu boole dafa bari mook seex ndax soxna Ayda waajuram soxna Xadi sëñ Chouaib bu dafa wax ne sëriñ bi daf leen daa boolee di woo di leen ñaanalandoo téye seen ñaari bopp di leen léemu foofu lañ wëlërante ci njëriñ nee na bi ma dalee ba ñëw Touba may nemmiku di gëstu bañ wax ma fam ne ma ñëw ba gere seet ko ngir loola seetsi gi ma ko seetsi si nag ci laa xamee sëñ Abdul Xaadir ci laa xamee sëñ soxna May booba waaye neen soxna Xadi laa njëkk xam moom laa njëkk wëlëranteel ñoom ñaar nag duñu woon ñaar kenn lañ woon bañ na ko ba bis bi mu ñëwee daaru Xuddoos te ñoom amuñ kumpa seen digg seen borom mu war a wujji boromam mennum suñ soxna bala woolu ba mu ñëw te booba dañu seet Cheikh Moussa dogal ba ñëw waaye suñ soxna bi la daal woolu ba mu ñëw mu wax ko la mu bëgg ak na mu ko bëggee batale ko boppam door a dem loole it sëñ Sam bi daf ko jàppoon lool ci njaboot gi ci sëñ Ahmadou ak soxna Ayda ñeewante leen lool jàpp leen lool ngir seen waajur loolu di mbirum boppam mu bokk teg nag mbakki kenn ni soxna aminte kenn ni ñu bokk liñ bokk mbakke doon lim doon ci mam ci man <laughs> soxna Aminta moom loola ñëpp xamandoon nañ ko yooyu yëpp nag boo ko boolee sëñ Mbàkke nag doon sama wéttalu xol ci yoon wi ndax dañoo bokk fuñ ne moom mooy kennal sëñ bi wéetal sëñ bi bañ koo booleeg dara ma di ko dund ak moom lu yàgg jàpp naa ne 73 laa ko njëkk gis ko sëñ Ablaat am liggéey boobu sëñ laa doon liggéeylu ba ñuy dooru mool yi jàpp naa ne kaamilu la Abdou Lahad bu Abdou laa Jaxate boo ko fàttewut sëñ la am na baat bu ñuy wax faj nax faj nax laha wa tawakkal ala Allah tomb boobu daa ñëwutoon bañ ko seetloo nag ñu dajale gone yëpp ne nañ ñëw faj naxal nu faj nax bu neex la woon ndax buñ faj naxee ba ngoon dañuy am wecceru bare bari ci ëllëg si dañuy ñëw na xanaa faj nax bi daa jeex boobu nag sëñ Mbàkke da da caa bokkoon ca mag ñan doon taxaw ak sëñ Abdul Wadood ak xame naa ci ñu bari daal sëñ Mbàkke ba mu ma tegee bët rek la ne ah kii de moom daal may di rek tàmbali ma fonk ànd ak man dem këram te ma fa ba guddi mu jox ma mbubb mbubb moom ne sax war naa ko suñu soxna bi ba ma egsee suñu Mbàkke Faaja maa ma la ko jox tàggoowuñ nag tàggoowuñ may ñëw ajuma jot mosaa jot damay ñëw këram yendu fa falaay añee falaay toog ba takkusaan door dellu falaay bu ma jullee rek falaay ñëw toog bokkee toog sax da ñaari moroom lañ da ngay def ne rek ñaari moroom yi tolloo ay at ñoo waxtaan lu ne mën nañ ko wax ñooy yabante bëggante miinante lool lool lool bu ku ko xamul sax da jaaxal waaye muy jëmm joo xam ne dafay nekk ba dem te ñu bari xamuñu ko dafa téye ab ab cëram nëbb ko nëbbe ko yu bari xuus ba jàll rek ci àdduna te àdduna yóbbul ko dara damay nettali toujours dama koy faral nettali ci moom man xam nga damaa bari nelaw bëri lu may gént di gis yu mel noonu waaye yàllaa ma taw fee xale rek mu dem ma gis ko gis bu leer laaj ko mu tontu ma ma laaj ko mbiram ak ci lum ne mu wax ma lu dal sama xel lu sedd sama xol waaye mu teg ci ne ma nanga xam ne fii di xasida yi am nañ fa wàccuwaay lool ma ne ko xasida gu fi ëpp wàccuwaay mu ne ma yëpp ko am waaye masaalik ak nooru daar yi ni benn ëpp leen fa wàccuwaay xanaa masaalik moom téere bu ñu firi la waaye xëy na jafe gaa tax muy wax waaye mënu ma xam lu mu ci jublu waaye loolu la ma wax yàlla dogal ma gis Sëñ Saaliw nettali ko ne ko damaa gént gis suñ Mbàkke Fànja ma wax ma wax mu ne ma ah, loolu di yéeme na lool ndax nooru daarin bi ma njëkk am de moom ma ko bindal hmm. dama boobu suñ mag bi woon moo ko bind suñu laata am boobu nooru daarin bëreegul ma àbb ko ko mu jox ma xaaj bi dagg di dégg sax mu naan mi ngi yem ci walta caali dunia liyal ma saaliha qaidatan abdan xadiman mu ne te boobu jubluwuma ko da ko ne ngaa ngi rek mu yem foofu <laughs> sëñ Ibrahima jox ma ko nee na ma jël jox suñ Mbàkke mu bind ba mu àgg ma jëlaat joxaat ko ba jëles ma joxaat ko mu ne ma mu ne ma sàllaaw bay nóoru daari ni jooju dong de mën na ko may lu ne <laughs> muy jëmm joo xam ne ak taalibe rek la doon doxe fi mu bokk sax doo ko xam da ngay defe ne bokkut ak sëñ bi dara dara dara dara te génnul sëñ bi fenn waaye ci taalibe rek la doon dox bañ na ko ba jëmmal lool tax na ab taawam Seex ko tuddee ndax bëgg boole boppam ci taalibe yi rek la Sëriñ Fallu waxoon rek ba sëriñ bi ne na ma taalibe yi féete fii bokk yi féete ma fii mu dem ci taalibe yi Sëriñ foofu la ne moom njaboot gi nag di sama njaboot ci nii ma leen wax ci wet yëpp waaye nag di sama njaboot ci wetu Sëriñ Mbàkke gi nga xam ne ni ma leen jure ni laa jure doomi Sëriñ Mbàkke yëpp jaboote leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu di ma xool ci bët boobu ndax cofeel gi ma amoon seen baay ak cofeel gi ma amoon ci man moom mi nag maa ngi koy tàmbali seex magam ku xam na ne jamono egsi ci ku ne amatul jot waaye taxoo nañ lool dawul jóg ci man la sëñ son bu daa tooñee sëñ Mbàkke rek euh, xanaa mu da nga naan maa ko toqi rek loolu daa tooñee sëñ Mbàkke donte xam naa ne li mu koy màggee du bari sax waaye doomi sëñ Tuubaa mel noonu ah mu koy sëñ Mbàkke yow kay da nga naan seex da nga naan maa ko toqi rek waaye seex yi dama naan maa ko toqi rek moom mi nag fa la jànge bii laa dugg rek laa ne ah suñ ma ngaan gi dana yàqu yaa ngi yóbbu fit wi di <laughs> moo ko seex bas waxtu bu ñu gisee laat dama ah laat waru woon a feeñ fii di yaa ngi yóbbu fit gaañu xam ko la yàgg duma moom boo gisee rek sa xel ci ci yar ba lay dem digal baal ma waaye ñoom ñëpp de. Hmm. moom mii moo ma ci bindal kaamil. ah bi mu noppee. ba mu noppee daal bind moom dong moo ma ci bindal kaamil. Eh. yëkkati ko jox ma. waaw eh, tubaarkalla loolu rek doy na si. Eh. kaamil ba ma suñ sooy booleeg moom. Hmm. ni ma naa ko yër suñ suñ mbàkk. Hmm. maa ngi dem mu fekk mu toog suñu bibliothèque tëj ko suñu bibliothèque. suñu mbàkk jëlal jëlal li jëlal li. ma ne maa ngi maa ngi dem fekk ko mu toog ak suñ suñ suñ Abdou Latif mu mu daaru minan mu mu toog ak moom ci ab yéen ma ànd ak suñu sooy bu ni ma demal ba ca moom nga joxal ma ko kaamil bi ni ko ni ko ni ko cuuj ko bii moo ko bind <laughs> booba tuuti na lool waaye nag ba ma ko joxee mu ni ma boo dee neel suñu sooy bu dama ko waroon a bindal kaamil te bindal ma ko kaamil moo tax ma tax kaamil bi te man maa ko dàq bind fuuf <laughs> waaw maa ko dàq bind fuuf kaay bi moom law na ko domm na ko dina ko jël féetewoo ko ma te man mu bàyyi maag sëñ Tuubaa <laughs> man mu bàyyi maag sëñ Tuubaa sëñ Abdoulaye sëñ ci boppam sëñ boole ma boole na maag moom ni ma naa ñu ndar bañ fa jógee ñu jaar ci ay taalibe bi ñu nekk ci ci kaw waaye sëñ sëñ eh, keroog sëñ Abdoulaye sëñ Saliou nee na ma sëñ sëñ sëñ Mbacke Fadiama sëñ Abdoulaye nee na ma mur saadix la waaw nee na mu saadix la bañ agsee ju bañ agsee jógee ndar waxtu timis ñu yem bëgg timis di bëgg a ñu gis soxna Astu Gaawaan génne ci kër Abdu Lahat ànd ak gone yu gone yu gone yu jigéen ñu ndaw mu ne ay waay suñu soxna Astu Gaawaan a ngi dox ci suuf daal daal daal daw ca buntu jumaa jot ne fa góorub së sëgg ni ni ni chauffeur bi fexeel ba ba ba yóbbu ko te ba mu xam ne sax noo ngi woon ci oto bi waaw fexeel bu yóbbu ko ba ba mu àgg fu mu jëm te moom xam ne ñoo ngi woon man eh, ma man ah ma saa def gi sëñ Abdoulaye doon sëñ Saliou doon wax de mi nii <laughs> waaw waaw jërëjëf sëñ sëñ bi sant nañ la lool sant nañ la lool maa ngi doon wax naan eh, xayru sayxin wa xayru man amma qawman sayyidan saalihan fa Abdou Samadi waaw waaw yàlla sant nañ la waaw bëgg de. yoon wi la de moom sagub yoon wi la de sëriñ daara yëpp ko war a fonk de. waaw moom ko du alxuraan la xol yi tooy na lool li ci am solo rek mooy moom kër gi moom daanaka damay wax ne sama kër dama fee bari lool gis nga sëñ Abib mais noonu laa meloon ak waajuram mel koog moom waa kër sëñ Gade yi ñoom ñëpp gis nga ko jabar gépp noonu laa mel ak ñoom fii daal moom amul frontière lii gaan na wax rek moom xam nga amut àtte ci man sax ay waxam moom day topp day topp bakkanam ci man ba ëpp waaye rek sant na sant naa sëñ Tuubaa daal ci bokk gi sant naa sëñ Tuubaa ci bokk bu baax di ñaan nag lii ma fekk rek mu yàgg fi mooy toppante gi ngeen toppante ak gi ngeen bëggante nga xam ne lu ne ci yow mooy la ne ci sëñ seex la ne ci sëñ seex mooy li ne ci yow ndax moom ñun cër yuñ mën a am ci yéen te àndu leen rek du ngeen noppal du ngeen a noppal waaw lii kum ku kum doyut dara du la doy Abdou Samata ngi nii barki dem la ko doon indi mu yeesal ak njëbbalam euh, loolu nag ak yëg ak itte féetewu kaw lii itam bu ma xamoon nii lay demee dana demee neneen waaye dama ko simple lool jàpp damay ñëw seet si daara ji rek ndax bi mu barki dem laa ko nag daara ji ni ma ko déggee boo doon boo melutoon nii nga mel ci man it te ma dégg daara ji na muy doxee danaa ñëw seet ko ndax damaa war rawatina nag eh, eh, yow mi ko def moo tax mu bëggoon a seet liggéey bi kañ ko soññ ko gërëm ko sant ko ndax lii dafa mel ne suñu bu la ko defal day mel ne daaral la ju jóge ci kër sëñ Sohaybu rek di ab roq bu ne fii fii ne sëñ Abibu bu yoree daaraam day mel ne sëñ daara sëñ Sohaybu la boo yoree daara day mel daara loolu lépp day dellu ci la ko sëñ Tuubaa dénkoon alxuraan na nga sax ci alxuraan fonkal ma ko te teralal ma ko loolu lépp lii lépp day dellu ci ndam yooyu moo tax war nañ fee ñëw war nañ koo seet war nañ koo seere dina ñaanal nag nga àgg te dara ba njaadog ñaan nga àgg te dara ba njaadog ñaan nga àgg te dara ba njaadog ànd ak sëriñ Seex liggéey bi ak njaboot képp nag yàlla musal leen te aar leen sàmm leen ci barke sëñ bi maa ngi ñaan ci nag dara darajey magi mag ki nga xam ne moo gën a xol ñëpp beneen nangu dogalu bu yàlla ñëpp ndax doon doon doomi soxna jaar rek daa doy ab cër waaye nangu loolu lépp nag mag sëñ ba noppi jox ko sa bopp yam ciy loxoom loolu moom dafa rawum xel kooku nag dara jaam ca yàlla maa ngi ciy ñaan ku teew ci jaraay bi rek yàlla jéggal la ci barke sëñ يا قريب يا مجيب صل على الذي تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المزازي سلام سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المزازي سلام وكن ليبقى والدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكل وكن لي دار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكل euh, lan ngay am ci looy dolli ci ak cant nga xam ne dana ko mën a mottalee liggéey bi incha allahu taala sëriñ si Abdoul Ahad bisimilah. bisimilahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin sayidina moolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid balaa'i asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yi may seetaan yëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba di ko ñaanal su sunu borom yàggal ko fi lool mu yàgg fi di lagu di sagub lislaam rawatina yoonu murit béggale ay naalam yëpp tey jii nag xew-xew bii nga xam ne moo amoon fii ci kër gii di kër Serigne Mbacke Fadiama ci Misra muy Serigne Abdou Samad ibnu Serigne bu moom sëriñ Touba yàlla dogal mu amoon yéene ñëw seet si kër gi seet si daara ji seet si njaboot gi tam am ay yille yu bari yu ko lal ndax ba ci jëkk njëkk diggam ak kilifa gi nga xam ne moo sancoon kër gi sosoon ko ngir liggéey ak jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba dañu doon ñaari ñu ànd ñoo xam ne daanaka jenn jëmm lañu woon te li ko waral mooy yàlla da boole woon ak bëgg muy bëgg Serigne Touba di ko dund gu ba bëccëg da seq lu ne teraanga ju ne ci saahir ak ci baatin soppante woon bi woon ay soppe di ay xarit di ay wóolëre ah ni ma ko waxee keroog ne xam na ci moom mbóot yu bari yoo xam ne jàpp na ne ñu bari xamuñ ko te muy lu wér waaw yàlla boole woon leen ñu seede ci lu baree baree baree bare daanañ dawuñ tàggoo lu bari dawuñ umpalante te lépp sëriñ bi rek moo leen boole woon maa ngi fàttaliku nga ni fi sëriñ Mourtala daa def fi daa nekk sànq rek mi ngi wax mi ngi may wax ne am na ci boo xam ne sax dafa jiitu si ab diir laata sëriñ bi di ñëw ba mujj bi fi la yendu ba guddi mu doon fee jóge yàlla defit bi nga xamee ne tawa dikkal na ko muy tawatam ju mujj taxawaay yu rafet la ca def ndax dafa solu dàllam bàyyi at yi ay di ci dox di ci wax taxaw taxaw taxawaay bu rafet yóbbu ko ci dem ci sëriñ Saliou waxtaan ci moom mm, ba sëriñ bi def ci taxawaay yu mat moo ko yóbbu Ndakaaru ñaari yoon yoo xam ne ba mujj bi rek Serigne bi da koo booleeg mu ne ko yóbbu ko sama kër ga ca cees mu noppalu ndax nit ñi koy dikkal dañ koy sonal ndax sëriñ Serigne bi moom doom Serigne Touba dañ ko bëggoon. Euh, Serigne Saliou rawatina nag Serigne Saliou ñoom ñëpp ko bëggoon maa ngi fàttaliku Serigne Saliou digg bëccëg la fa ñëw doon ko seet si daata muy dem Dakar tam yoonu mujj wi bi mu waajee ba jekk rek la Serigne Mourtala egsi moom ñoom tegoon nañ ko foo xam ne moom teguñ fa ñu bari di ay seet gis nga dégg ngeen li Serigne Abdoulaye Diakhaté doon wax ci li ko Serigne Abdoulaye wax ne ko Serigne moo ko wax ci moom am lu ko seereel loo xam ne ca la garaat mën a Abdou Samad di xeeñtu loolee nag di ko dox ñëw fii mm-hmm. ah, kon su yàlla yàlla xiir ko ci fi mu toll ci ay yitte mm-hmm. ak tënk-tënk ak ñàkk jot mm-hmm. yàlla xiir ko ci damay xam ne moom bëggul sax kenn du sonn waaye nag lu baax soo amee danga koy yaatal ba ñëpp bokk ci ndax ma ndax lu gàtt la lii fii mu egg nii ndimbalul sunu borom la waaye mënoon na caa bañ a àgg ndax ñaari fan rek ci lañ ko jàpp altine ci lañ ci dogu talaata àllar euh, dibéer lañ ci do lañ ci dogu altine talaata àllarba muy tey jii kon nag su melee nii sant rek la la def euh, te li tax ma ma ne naa ko fonk itam damaa xam ne euh, malaanum teraanga moom ku la koy jox da koy lem ba mu jekk jox la ko kenn mën na ko bañ a gis waaye nag euh, soo bëggee jotal ak cant da koy taalal ba ñépp gis ko mm-hmm. euh, te itam lii xam naa ni yiw bu bari mi ngi ci mm-hmm. ndax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax na min husni islaamil mm-hmm. lii muy kóllëre gu jiitu ñu koy jokk lu rafet la ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax ko sëriñ Abdou sama doon ko dox moo tax ma ne naa ko yaatal ba ku ci war a bokk rek am ci sab cër mm-hmm. ndax eh, mën na fee ñëw ba dem ñu bari dañ leen koy nettali mm-hmm. waaye ma xam ne lu baax ku ko am danga koy yaatal mm-hmm. bokk ak say bokk ak say dëkkandoo ak say wëllëre ak say xarit moo tax ma ne xat na sax waaye nañ ko yaatal ba foo mën a yem ci yaatal xëy na su gënoon a yaatu ndax ñu bari sax jotuñ ko yëg ndax xataay bi ak gàttaay bi ñaari fan moom dara da cee xajut ak waajtaay waaye nag sant yàlla baax a baax lii daal moom kawe na njort bu baax kon dama ne daal naa ko yaatal bu ko defee dëkk bi ci boppam ñëpp bokk ci mbokk yi xarit yi wóllëre dëkkandoo yi ak ñu dul waa dëkk bi ci ay soppeek xarit wóllëre ñëpp bokk ci ndax lu baax la loo xam ne yaa ndax liñ fi def lépp aw yiw la woo xam ne mën naa juri njariñ loolu moo ko waral te itam fii mu ñëw kër gii nga xam ne doomi Serigne Touba ju ne wàcc na fi daanaka nit ku baax ku ne wàcc fi ñaan fi borom mi tam doonoon ko amub cër ci sunu borom amub cër mag ci sëriñ bi ñëpp seede ko yoon wi ba nga xamee ne jóge fi mu gent ab diir nga xamee ne jot naa ndigal ci sëriñ Seex ngir dundal ko li li ma sëriñ Touba njëkk a yankiwal mooy ma liggéeyal fi sëriñ bi ci loo xam ne sëriñ Saliou nee woon na mooy li gënal sëriñ bi ci liggéeyal ko muy dundalal ko alquran ak xam-xam ak yar ndaw ñi ak tàggat leen yar leen yarub lislaam ci liggéey ak jaamu yàlla ba suñu màggee mën a jëriñ seenu askan loolu nekkoon nekk suñu yéene ci euh, daara jii Ah, sëriñ bi nag bi nga xamee ne soobu nañ ci ni nga xamee ne sunu borom wax ci xadis xusi ne ku ma jege jegeñ loolu euh, ma jegeñ lu xasab na ko waxee ci xadis loolu da ci am ndax biñ ko soobar gis na ne sëriñ bi wax lii ñor na ko te yitteel na ko te gàttan nañ ci baax itam jàppandal na ko ma tax ñu gën cee xir bu baax a baax a baax ah, te di gën a jaaju bu baax sëñ Abdou Samad tam ñëwoon di di di di ci soññee di ci jotal ay cant ak euh, muy lu am solo moo tax ma ne euh, naa ko yaatal ndax la waykat ba ne lillaahi qawmun iza xallu bi manzilatin xallan nada wal huda wal jul wal aw kama qaala fi satri saani moo tax ma naa ko yaatal rek ba njëriñ lew ci te yaakaar naa ah xëy na su gënoon a diire dana gën a yaatu waaye nag mm, li ñu itam sant nañ ci baax a baax ah, kon nag mu mel ne loolu rek moo doon jublu gi te lépp nag di fàggub sëriñ bi rek ndax amu ci leen lu ñu waajal moom moom jëmbi boppam ci ak baaxam ak lu baax moo jàpp ne ma bëgg na faa ñëw eh, seet si liggéey bi seet si daal yàlla dogal itam moom bëggul lenn loo xam ne lu diis la waaye nag man maa xam lan moo nekk ci teral ku demee ne moom ndax xam naa ne am na ab cër ci sunu borom ak ci sëriñ bi ndax koo xam ne waxtu wu nekk ci jariñ doomu aadama yi da dëkk ndax dañuy wax ne jàmm yàlla ci jàmm yàlla yi bu dee ko woor ak yu noonu moom ku ko def sabab nga ko defal waaye nag jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi lim jëriñ si li ndax bañ nañ ko ba dañu addawaayun salaasa diwaanun yox far wa diwaan laa yox far wa diwaanun yu taalab dafa am uh, téere yi ñuy bind bàkkaar yi da ci am téere boo xam ne dañ ci bind bàkkaar bi moom kenn du ko jéggale mukk di di di di bàkkaar boo xam ne day yomb loolu ñu jéggal ko boobu mooy lu mel ne koor gu ñu bàyyi wala asaka wala aj wala umra wala yu demee noonu yomb na suñu jéggal la ko bi nga xam ne du ko jéggale mukk mooy al israq bi la alliance mooy bokkal suñu borom bi nga xam ne nag moom duñ ko jégg jéggale mukk dara ñu euh, réclamer ko topp ko loolu mooy li nekk sa digg ak jàmm bi ak yu ak yi moom li ñu al masalim loolu moom faaw rek dañ koy topp ba nangu ko su su soo ko suñ man ثم المسألة مسألة قسمين أمالا أمالا أهرادا بغير mayni gudd la jërut jërut yaatal waaye dañ koy topp muy li dox sa digg ni ci ab deram wala alalam wala demee noonu bëgguñ bëgguñoo guddal waaye yooyu yëpp boo ko defee li nga xam ne nag sa digg nit ñi la moom moo tax day egg sax ci nit ki suñ ko jéggalut mën nañ ko jël sax ci aw yoom jox ko ko ñëw nañ ci ba ñëw ci iflaas ak wala bi la njëriñ guddal waaye dama bëgg a wax rek ne dama bëgg a wax rek ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi moom dafa am solo li dox sa digg ak moo tax sëñ bi sama doon koo xam ne loolu moom mooy ab liggéeyam jëriñ doomu aadama yi la si la naar ba wax sëriñ bi ne wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naful wara fii subhihi wa yi daal ne dama leen di xamal ne sëriñ bi am na sikk ñëpp teg seen loxo seen bi mu ne leen waaw su ma waxee ne am na sikk mooy sikkam de mooy dëkke jaamu yàlla rek ak jëriñ mindee fii suba ngoon ñëpp sama loolu la doon ci maam di jëriñ doomu aadama yi bëgg sëriñ Tuubaa nag di ko xeeñtu lu mu xam ko ci sëriñ bi ngir sëriñ bi yitteel gum ko yitteel jàpp naa ne yoonu murit ñi ko gën a xam ci sëriñ bi ak doxinam ak dundam bëriwut te lépp sëñ bi la koo ñor rek mu bëgg ko eh, looloo tax bi mu jàppee ñëw fi mu ñor ma lool mane naa ko yaatal ba ñëpp mën cee jariñu bu baax a baax te li mu fi wax itam yaakaar naa lu am ñaan ndax na lu bari lu lëntoon ah te yëf yi yaatu na tubaarkàlla moo tax ko sant sant sant sant naa Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy lif lépp sant ko moom mi nga xam ne suñu waajur la di suñu sëriñ ndax sëriñ Sohaybu moom la ñu féetale yàlla dogal lu nekk ci ñun moo nu ko def moo ko moo ko def ci ñun alxuraan ak xam-xam ak lépp loo xam ne rek ndax daara ji ci daaraam la jóge rek ndax lañ fa jëlee rek moo fi nekk kon moo tax su fi su su jàppee ne dafi ñëw damay jàpp ne jëmi suñu sang bi moo ñëw moo tax du ko cof mukk dama ko yaatal rek ndax xam naa ne lu baax moom yombut te ni mu ko waxee yéene la ko def waaye xam naa ne mënu ko moo tax ma ne kon su lu mel lu mel ni amee rek nañu ko fonk moo gën ñëpp jariñu ci loolu laa ko jële euh, kon nag maa maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm di ko ñaanal xam naa ne moom lépp daal tawféex la rek euh, di sant bu baax itam mbokk yi mbokki dëkk bi euh, mbokk yi nga xam ne ñoo bokk lépp seen taxawaay rafet lool lépp doonu ma dara ñu taxawu ko dam ware ma lépp rek ñu taxawu ko taxawaay bu mat sëkk lijjant lépp ba aw yoon waa kër sëriñ bàyyi sëriñ Gédés bàyyi bàyyi sëriñ Saam bàyyi sëriñ Basiiru moom sëriñ Maam Balla ñoom ñëpp rek eh, taxawaay bu rafet lañ taxaw bu mat sëkk rawatina nag jigéen ñi nga xam ne ñoo doon liggéey bi taxaw ko ba lépp mat naa sant mbokk yi nga xam ne ñoo bokk lépp bokk mbir mi muy waa kër Baye Serigne yi nga xam ne ah, seen kër Baye la ñëw di ko dundal si di ko seet si ñu bokk ñoom it ñu teeru ko teeru bu rafet Ah, am ànd ceeg mbégte ak taxawaay bu mat sëkk kon nag ñu ngi ñaan lépp rek ah mu mu dëppee dëppoo mbégum sëriñ bi ah sëriñ Abdou Samad wax na ma keroog ne ma ah, lii moom luy dëggal yaakaar la ci sa waajur te itam na ci rafet njort te xam ne da ko gis bu baax a baax a baax mu doole mu doole mi ak rafet njort moo tax sax ma ne na gën a fonk baax a baax a baax ah, di sant ñëpp nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne daara ji itam moom ñoom la ma sëriñ Tuubaa booleel ndax ñu liggéeyal Serigne tubaa moo xam ci biir réew mbala ci biir réew bitim réew ñu ngi sant ñëpp di sant Serigne Touba mi nga xam ne nag moo ci defal tawféex ba luñ ci man ñu man ko ci bëgguma lim di juum ak itam waxtu wi du ko maye waaye képp koo xam teew na ci bis bi daal di di mbokk di wóllëre di dëkkandoo di xarit di taalibe ñëpp sant nañ leen baax ñu bari sax jóge nañ ba fudul ci dëkk bi sa sa sant ñi fi teew ñëpp rek ñu bokk bis bi ñu taxaw ko ba mel niñ ko bëggee woon loolu suñu xol sedd na ci sant yéen presse bi nga xam ne yàlla ma boo léegi yéen li yëf yi jàmp-jàmp ah sëñ rek ndax man lii ni ma ko jàppe fàggu sëñ bi la ndax ñaari fan lii moom su ci amee ak ni mu demee yow sëñ afi xam nga ko lii lépp daal lu sëñ bi fàggu la ba noppi rek bëggoo bëggoo bëggoo leeral bëggoo wone xam naa ne moo tax mu demee nii mu demee kon ñu ngi leen sant baax di leen ñaanal na seen xel dal yéen a ngi ñaanal seen bopp te xam ne sëñ Tuubaa moo leen dimbaleel boppam ñu ngi lay sant yow sëñ sëñ afi dinaa nga jot leen cant gi sëñ Jibril Touba TV ak kilifa gu mag ga sëñ Mbàkke yu ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen ñaanal nag ci ci ci ci ci ci ci barkeb Sëriñ Touba ak lépp lu ñu fiy def ci lu baax ci daara ji di sant itam suñu ah, seex ñu ngi lay nuyu la sant bu baax a baax yaag Abdoulaye Diouf mi ngeen ànd ci situ Misra TV bi di sant sëñ Fallou Galas waaw ah, sëñ Fallou si la ci taxawaay bi daanaka eh, yéex na koo yëg lool waaye moom day sama xarit di sama soppe di sama wëlëre moo tax lu ma nekk rek faw nu ànd ko mu indi fii télé bi ñu ngi koy sant bu baax baax waaw suñu seex ñu ngi lay sant yaak suñu laat ndax seen taxawaay rafet la ci Misra TV mi ngi dundal dëkk bi ak lépp lu baax lu ñu fay def di ko tasaare doomu aadama yi di ci mën a jëriñu kon nag loolu lépp ay xéewal la yu am solo yoo xam ne ndax lii li tax mu am solo mooy ah du yem fii rek fii ba àddina tukki nit da ci mën a jëriñu mën cee dolli ko liñ ci wax ci lu baax ci sëriñ bi ak liñ ci def lépp rek kon daal sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ah te ne lii nag lu ñu xeeb la ndax ah, suñu yéene ëppoon ah, xëy na nag ndab lu ne moom ak la ca rek ah nii la woon te xam naa ne du yomb waaw ah, moo tax ma ne nañ ci def lu ñu mën rek waaye nag suñu yéene ëppoon na lii kon nag ñi ngi sant ñëpp képp koo xam ne jotu koo gis ñu xam ne xataay bi rek ñi nga xam ne itam duñ koy li muy xat-xat ñu bàyyi lépp luñ jàppoon ñu ngi leen sant bu baax a baax gën nañ leen a jàpp gën leen sant gën leen a gërëm bu baax a baax a baax ah, di ñaan suñu ko suñu koy defati rek mu gën a yokk bu baax a baax a baax a baax suñ tubaa defal ci képp ku fi teew rek mu defal la fajuk aajo ak yéweenu mbir àdduna ak alaaxira waaw li ma yéene woon ci wax ko ci lu baax ëpp na lii waaye waxtu ko ma yewut sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ku la xamin ma antu bi di di gërëm taalibe yi taxawaay bi taxaw ci bis bi ñu ngi fu nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.